des acquis démocratiques c'est obtenu de haute lutte ay góor ak ay jigéen ñoo mobiliser wu ay ndaw ñu jàpp leen clan ñeeg nit ñi nekk dans la clandestinité di xaar trois heures du matin di daw di tafi ay affiche yaayu y avait des journaux des journaux clandestins amoo droit jaay ko ay nit di jël risque di ko distribuer on a vécu ça dans ce pays là mais non naka la ñu war a mën a yegg see en deux mille vingt quatre aujourd'hui nga xool mu àdduna mi muy doxee yow nga aw war si am benn positionnement bu am solo nga xool la sous-région tey ji ni mu nu mu mel nu mu yëngoo nga war si am une lecture profonde tu sais a à peu près quatre ans quand je le disais euh, sur les plateaux confrères di ma ree ma leen si quand on aujourd'hui on est aux portes d'une guerre froide aujourd'hui nous on la vit mais officieusement mais tey jii nga xool géopolitique mondiale bi géosécurité beeg tout mais on est en plein mais est-ce que Sénégal war na créer les conditions d'une déstabilisation pour des considérations politiciennes je dis pas politique pour des considérations politiciennes war ñu mun a tabbi solo ji bi aujourd'hui tu vois y a un il y pôle bu taxaw di jàngatee neneen la décision rendue par le conseil constitutionnel pour dire que le conseil constitutionnel a dit dans sa décision rendue qu'il faut aller dans le sens de reprendre tout le processus ah man de du waaye waaye nag la ma jàngat la ma jàngat te liir ko defe naa ni nag euh, euh, euh, yomb na xam parce que dañu naan nul n'est censé ignorer la loi waaye bu fekkoon ni lépp juriste yi ñoo koy ñoo ko war a interpréter sur kon loolu amul sens ñu naan nul n'est censé ignorer la loi loi kañ du daw ko liir daa ko comprendre. kon man su ma déggee madame Aminata Touré dogguma la Abdoulaye Mbow mais kon dafa mel ni ñun sori nañu lool ngir yegg ci feewu combat bi ñuy wax mooy tenir des élections su amee dernier conseil bu may jox euh, Macky Sall mu organiser élection yi avant muy dem ñu am mhm. président mhm. mooy li ma wax sànq c'est-à-dire le peu de meubles qui lu reste à sauver mooy lii mhm. parce que nag bu dugalee réew mi ci instabilité boo xam ne bii musuñu ko xam defe naa ne conséquence yi moom moo koy njëkk a dund moom laa jàpp parce que nag li mu bëgg après mooy mu dem am sa retraite voilà def naa leen <laughs> lool loolu lay wut xanaa loolu lay jàpp kon ñii di ko conseiller ñoo ko conseiller ba indi ko fii d'ailleurs ñoo ko indi fii mu ne ah <laughs> voilà ña doon wax mën ngaa def troisième mandat nangam nangam boo jàppee kii boo tëjee kii boo génnee kii assemblée nationale gis na li mu ko jural gis na li mu ko jural kon euh, moom na na waxtaan ak boppam <laughs> nga boppam daal na na waxtaan ak boppam ah, kilifa la eh, na waxtaan ak boppam. Mhm. Eh, xam ne li nga xam ne nag mooy li ñuy fàttaliku. Mhm. mooy mooy mooy lii. mooy mu bañ a dégg ñii di ko topp parce que souvent ñi ànd ak yow xam naa ji dara fa laa newoon ku ci nekk sa sa privilège ngay topp. Mhm. intérêt réew mi c'est très c'est secondaire. yow na affaire bi prolongé wu nga seet noo ci jaaree noo ci et cetera mais moom loolu war waratu ko yitteel li ko war a yitteel après ak li fi jaar lépp nag. comme commencé woon na libéré xale yi nga xam ne dañu leen jàpp violer seen droit téye leen sept mois moom mu reconnaître ne dañu leen defuñu dara ñu bàyyi leen parce que loolu it problème la parce que ñii ñu jàppoon ñëpp dañ ne woon ay terroriste lañ waaw a nga loolu aussi problème la ci suñu réew yi ah ki leen accusé woon terroriste kooku la ñu war a topp kon parce que dañ ne woon ñoom ñëpp ay terroriste wala dañ libéré ay terroriste dans la nature kon fi ñu toll nii c'est des accusations extrêmement graves c'est-à-dire aussi mm-hmm. kaddu kaddu ña ko jiite dafa am solo ab ay xale nga ñëw ne ñii ay terroriste lañ le mot terroriste dafa dafa dafa grave nit ñi dem nañu guerre euh, pour des de terrorisme ah. ñu yeewu ne doo non duñu finalement duñu ay terroriste d'ailleurs sax wala définition terrorisme ci Sénégal dafa wuteeg yeneen am na ah, am na définition boo xam ne ñëpp ko bokk donc yooyu euh, comme man li ma ko liiree mooy réccu la bien que ñooñu seeni droit war nañ koo topp pour man ma ko yor famille yi ku ci am ku ñu détenere noonu bàyyi la nga dem amul lu ñu la reproché mais mun ngaa poursuivre l'état pour détention arbitraire mun nga ko poursuivre waaw waaw laaj ay dommages et intérêts absolument mais fi nga fi nga war a jaar <laughs> dans la loi kooku convention internationale yëpp wax nañu ko bien sûr ci yoon mun nañ créer sax collectif ñoom ñëpp d'ailleurs mais foofu la ñu war a mujjee et état daf leen war a indemniser tëj nit ki naqaral ko mettilal ko pendant sept huit mois nga bàyyi ko amoo loo ko reproche kooku da ko war a indemniser mm, en voilà donc comme moom dama jàppale sama sama sama sama sama gis-gis sama njàngat mooy dafa commencé rëccu mm. bëgg a rétablir rétablir ba nag ba nga xam ne mooy bëggan mooy nga comme nee na moom dafa bëgg a bàyyi dëkk bu stable mm. dëkk bu stable kay mënoo weesu organiser élection mm-hmm. démocratique transparente kenn bañ laa influencer. moom li mu war a def président Macky Sall mooy mu bàyyi ñii nga xam ne ay conseils yu baaxul lañ ko jox ba mu yegg si fii. moo ko indi fii. xam nga ne war naa réccu report élection. report boo xam ne d'abord dafa indi ñetti ñu dee. report boo xam ne da nga dem assemblée nationale ñu wote fa loi ba loi ba dem conseil constitutionnel ñu leen yéen da ngeen a jalgati constitution gis naa ñu ne in prennent acte et cetera ñoom war war nañ war nañ war nañoo war nañoo am kersa. mais est-ce que du lu ñu waroon mën a xaarandi parce que euh, c'est la énième fois ñuy pas reporter élection présidentielle mais élection wala constitution ñu koy laal di ko ñeb-ñebal est-ce que waruñu woon a xaar ne bés dina jot itam am ku taxaw am fitu taxaw ne moom dina reporter ay président 1968 la ko jaam <laughs> boobu kay bu say ñi ñam constitution di di xalaat ne dañ waaw mais daf ci am ne dafa am loo xam ne kenn mosu koo ñemee jéggi mm-hmm. kenn mosu koo ñemee jéggi waaw bien sûr nag gis nañ prof waaw ba yegg si fii voilà lii moom jéggi li tu li walam naan jéggi dayoo waru tama war tama naam euh, Ismaïla Madior Fall dafa am responsabilité ci lii da cee am responsabilité c'est le théoricien de l'impossible en matière de droit moo tax ba mu waxee ay ay ay magistrat tontu tontu ko mhm. réew nag boo demee ba d'abord moom dama xamul sax lu ci yoram parce que génn nañ ko justice yóbbu ko affaire étrangère ah dëgg yàlla vraiment dootul domaine am waaye yow comme nee nga am xam-xam bi te xam-xam bi saa yoo ko andee ñu teggi ko yow ne woon nga président na def Macky Sall na def troisième mandat ñu teg ne loolu nag aussi mobilisation sénégalais yi ko indi ñu waxati nga ne non non non élection yi nanga mën nañ ko pousse conseil constitutionnel ne la non yow nag wéeral sa àlliwa bu boobaa ñu dal di jàll ci li ci beneen ci ci leneen donc man li ma li ma li ma gëm mooy mu mu mu mu waxtaan ak voilà mm. nangu nangu boppam waxtaan ak boppam xam ne amul beneen conseil buñ ko mën a jox bu gën ci moom gën ci réew mi lu dul nga organiser ay élection avant ngay dem jël pouvoir bi jox ko ki nga xam ne moom la sénégalais yi tànn man loolu loolu loolu mooy li nga xam ne bu ñu ko weesoo ñoo nga jëm ci voilà euh, guddi gu bër setagul te sénégale yi nag fi ñu toll dañu sonn dañu stressé stress bi dafa bëri nit ñi li ñu bëgg mooy ñu am un nouveau président de nouveau programme nit ñi amaat yaakaar yëf yi dal ñu toogaat juboo suñu biir kon dialogue bi may wax après lay am pas moom parce que moom amatul légitimité pour kuy kuy kuy dem kuy dem le 2 avril tey dialogue boobu nga xam ne moo koy jiite boo amee ay recommandation ku koy ku koy ku koy mettre en œuvre kan moo koy appliqué buñ ne lii la ñuy jàpp lii la ñuy jàpp lii la ñuy jàpp te yow ay fana la fi des par contre dialogue ak ki nga xam ne moom la ñu nar a fal war nañ koo def ba lii bañ a mës a amati li ngay wax nii constitution kenn dootu ko laal liñ naan clause d'éternité ñu def ko ci article yi ëpp solo mhm. Amérique seen constitution bari na lu ñu ci mën a changé mhm. dañ naan ku nekk bu la neexee nga yor gànnaay sa sa réew gis nga musiba bi mu lay indi mhm. waaye lu tax mënuñ ci dara parce que constitution bi kenn du ko laal ñun nag waroon nañ hmm. defar constitution boo xam ne bi dañ ciy yokk loo xam ne di kenn dootu ko laal kenn dootul xalaat troisième mandat kenn dootul xalaat report d'élection droit yi nga xam ne nit ñi am nañu ko ñu gën koo dëggal ak yu ni mel loolu waxtaan lay am mais après Macky Sall kon su ma dem Cheikh Ousmane ak Diouri Ndiaye moom mooy kon madame benn yoon bokk ci dialogue. non man du lu may dialogue li ma koy wax kay maa ko koy wax nii bu dee am na ay conseils koy koy déglu ñu jottali ko ko euh, li nga xam ne mooy dernier acte. boo xam ne danañ ko war a mën a jàpp ba jàppandi bokk ndax li fi jaar yépp nag aussi neexut a fàtte mm, surtout mooy mu organiser élection yi Sénégal bañ a nekk ci incertitude constitutionnelle 2 avril ñëw ñu naan amuñu président est-ce que Sénat mooy organiser ak yooyu kooku moom euh, defe naa ne xanaa xanaa laa foog xanaa du ñu yóbbu ba foofa ndax fi mu ñu yóbbu sori na hmm. waaye xanaa foofa du ñu fa yóbbu. xanaa xanaa du ñu fa yóbbu Cheikh au risque au risque de me faire euh, expédier en Côte d'Ivoire là. Il faut que je les salutations de Papis Mbow à Madame la Première ministre. Voilà. <laughs> voilà c'est très important. Papis Mbow ñu koy ziare fa dëkkoon dama fa dëkkoon nag. Ah. voilà dama fa dëkkoon. kon kon kon waroon naa fekk heure bi nag ñuy ñuy feete suñu deuxième sacre ci ci wàllu <laughs> Coupe d'Afrique mais li la yàlla dogal euh, Cheikh Ousmane bisimilah euh, maa ngi koy wax léegi ah su fekkee da ci am looy àddu rek comme suggestion le temps ñu nga ñëw itam ci sa question euh, par rapport ak